min afaati zamani ci gàkki jamono wa tawaariqil xiddisaani ak way rañaani xew-xew wa yaxfadu te dana ko wattu allahu yàlla min kaydil ahdaa yi ci pexem noon ya wa anwaaxi charri ak xeeti ay wal balaay ak balaa bi fadlihi ci ngëneelu yàlla taxalaa kawe na wa karam yi akuk teddam wa hiya ñoom nag mooy qawluhu taxalaa ba tey am na lu ñu tudde almunjiyaatu sabhu wala nga ne ayatul najaati azab de juróom-yaari laay yoo xam ne boo ko saxoo suba ngoon yàlla musal la ci lépp luy xew ci jamono ji ci xeeti xew-xew yu tiis ak lépp loo xam ne rek ku ne da koy muslu bëgg caa mucc ci xeeti ay yeeg balaa yépp yàlla la cay musal ba ci say noon ba ci say noon sax du la mën a fexeel du la mën a fexeel menn pexe mu dal la laa yooyu nag siiw na bi ci jëkk mooy xul lan yusibanaa illa ma kataballahu lana huwa mawlana wa alallahi falyatawakkalil mu'minuun ci topp mooy wa in yamsaska allahu bi durrin fala kaashifa lahu illa hu wa in yuridka bi xayrin fala raadda li fadli yusibu bihi man yashaau min ibadihi wa huwa al ghafuru rahim ba ca topp wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi kitaabin mubin ba ca topp inni tawakkaltu ala llahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa axidum bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim ba ca topp wa ka ayyin min dabbatin la taxmilu risqaha allahu yarzuquha wa iyaakum wa huwa samiun alim ba ca topp maa yaftaxi llahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha wa maa yumsik fala mursila lahu min baadi wa huwa alxasisul xakim bi ci mujj nag moom moo tàmbalee wala in saaltahum bi nekk ci suratu zumar te daaneele la qul hasbiyallahu alayhi yatawakkalul mutawakkiluuna juróom-yaar yooyu lañu tuddee almumkiyaat asabon wa mimma bokk na ci la nga xam ne yusta amalu def na ko jëfandikoo fi ilaajil di ci faj tawat ay yan kaana ak ju mën di nekk xiraatul fatiha te jàng fatiha alayhi ci moom li àndaxaa ngir naka fatiha shifaawun saafara la min kuy daayin ci jëpp jàngoro kama fil hadis yi na mu nekk ci hadis ba ba tey nee na jëpp jàngoro joo bëgg yàlla fajal la ko rek say boo jàng fatiha jublu ci yàlla fajal la ko ndax hadis ba daa wax ne fatiha saafara la ci mboolem xeeti jàngoro yëpp wa kazalika naka noonu kitaabatuha ak bindam muqattaxatal xoroofi mbir moomu lu ñu dagg tey araf ba tey nga bind ko jàqale araf yi def baa def sinara def mimara def alif daal di def yaari lamara loolu cee teg alsaqeer nga xam daal araf yépp ngay teqale ba ca wala liin yépp nga teqale ko su ma tum xaa topp def na ko far bi maa in ci am ndox taahir mu di aji laab wa bu tey naan alxaliilu aj ragg ja maanaam ka tawat maxwaxaa far itam maanaam am raxas itam fatiha moom kon nga bind ko niñ koy bindee ak nga bind ko teqali araf yi lu mu ci mën doon rek des na ko faje mboolem xeeti jàngoro yi dañ koy bind nag ci ndab lu laab ñu ko raxasee ba set nag raxasit moomee ka amee jàngoro ja moom lay naan wa kazalika naka noone qiraatu ismihi taala jàng turamu moom yàlla assalaam mi atam maratin téeméeri yoon wa ihda ak benn wa ashirina ak ñaar fukk al marid ci aji tawat fa indahu naka moom yabraw dana wér bismillah ci nameelu yàlla taxala kawe na tur yàlla wi ñuy wax asalaam boo fekkee ku tawat nga jàngal ko turoowu téeméer ak ñaar fukk ak benn jublu ci yàlla saafara ko yàlla saafara ko incha allah waga saalika naka noonu kitaabatul fatiha ti jàng fatiha wa taaliquha akuk takkam waa in kutiba ndéem bindeef na nag maaxaa ànd ak moom musallasul Ghazali mu musallasub Ghazali yi rahimahu yàlla na ko doole yërëm allahu yàlla taxalaa kawe na kaana kon mu nekk ab laxa di gën a jot mooy di gën a matale ci lañ bëgg wa suuratuhu meloom ba moom musallasul Ghazali yi xaakasaa ni ki nii la ba nee na des na fajoo bind fatiha takk boo ca boolee nag ca fatiha ja musallasul Ghazali yi mu ëppati solo musallas mooy xaatim boo xam ne ñu ngi ko gisee ci téere bi ñu bind ko fi dañuy def yetti kër ci kaw yetti kër ci digg bi yetti kër ci suuf yetti kër yi ci kaw ñu bind ca ba ta dun ci topp ñu bind ci zaha jun ba mujj bi waax noonu lañu def musal lu xasaar yi xam ñu koy def seen jaaro yu demee noonu nga xam daal niñ ko séenee ci téere bi rek noonu lañ koy bindee ku ko boolee mook faatiha bind ko takk lu gaaw a gaaw la ci faj jàngoroom ba yokkute bu def na bind li ku limaa ñeel lépp loo xam ne yaxdus dana sosu fil jasadi ci yaram wa min dumbalin ci taab waxee yi ak lu dul moom wayum xaate dee fi ko fare bi maayin ci am ndox wayu rashu te dee fi ko bis xale yi ci moom fay na naka moom yab raw dana wér bis ni laa ci nameelu yàlla taxala kawe na lépp li dal ci der yaram wi moo xam taab la moo xam loxo yi dal ci baaraam yi la moo xam neew neew la lu mel noonu daal des na ko faje li ngay bëgg a dégg nga bind ko raxas ko di ko ca wis wis ga amul waxtu waaye mën nga koo def suba ngoon mbaa suba ak bëccëg ngoon ndax mu nekk takk-takk ci nga bañ koo fàtte ngay bind bismillahi rahmaani rahim teg ca baraatun minallahi wa rasulihi ila kulli illatin laa tuqiihu wala turiihu abadan insha allah habatun talahat fi saxratin sammaa la asla laha taabit wala farha laha naabit bismillahi arqiika min kulli daa in yu'diika wallahu yashfiika wa yuxaafiika wa yasaluunaka xanil jibaali fa qul yansifuha rabbi nasfan fa yadaruha qaaxan safsafan laa tara fiha xiwajan wala amta ayuhan naabitu fi jismi llasi yamootu mut bi qudrati lxayi lladi laa yamootu wa sallallahu sayidna muhammadin wa sallam xaalahu wax na ko baadu arbaabil xawaas yi lenn ci waroom jagle yi loolu da ngay bind def ko saafara di ko wis nag ca góom ba mbaa taab ga mbaa loxo bay metti mbaa newi newi ba dana wér bu soobee yàlla wa ñi nee nañu wa mimma bokk na ci li nga xam ne yan faw dana jëriñ li xirqin nasaa ñeen li ñuy wax nab nab nab di wala fi miin nañ ko lool tam mettite naqaree faj wat dummali ak taab wat tulooli ak picc picc was salxati ak góomu bopp asalxatu mooy firi góom bu nekk ci bopp ak su loolu nag day nekk picc bu sew te dëgër te koppandal boobaa ab fam lenn ci ñoom yoo xam biir firee mooy dana waxe bil uslooli ci uslool badala tu looli mu wecci tu lool ay yaqara amu jàng xale yi ci moom talaatat ayaami ñetti fan alfatihata fatiha ak wataral jibaala taxsibuha jaamidatan wax ya tamurru marra sahaab wa yasalunaka anil jibaali faqul yansifuha rabbi nasfan fa yadaruha qaaxam safsafan laa tara fiha xiwajan wala amta awa matalu kalimatin xabiisatin ka shajaratin xabiisa ujtusat min fawqi l ardi maa laha min qaraar alam tara ila alladina xarajoo min diyaarihim wa hum ulufun hadar al mawt fa qaala lahum allahu mawtu aw kallasi marra ala qaryatin wa hiya xaawiyatin ala xurushiha qaala anna yuhyi hadihi llahu baxda mawtiha fa amaatahu llahu mi ata xaamin mu daaneel nag mut deexal ayuhal xirqu yow nab gi wa dumbalu wala mu ne ayuhal dumbalu yow taab gi wa su loolu wala mu ne ko mut deexal ayuhal su loolu yow picc bi al us loolu ak su loolu bi firi picc daal ñu koy wax loolu def tombañ teg ci am sa wax su lool am ñu jàng nag us lool dafa am sa tekki siin soow waaye fu noonu ak uf noonu yëpp ay picc rek picc yu ndaw yi dal ci yaram tey dëgër tey kopp dal moom lañ ci jublu mu ci doon rek bu dee nab gaa nga ne mut deexal ayu xal xirqu yow nab gi bu dee taab nga ne mut deexal ayu xat dummalu yow taab gi bu dee picc nga ne mut deexal ayu xat tu loolu yow picc bu ndaw bi wala ayu xal us loolu ndax mën na yaari waxin yëpp wasalxatu ak góom bu dee asalxatu nga ne ko muutii ayatu has salxatu salxatu yow góom bi deexal lu ci mën di doon rek mooy wéral bi idnillaahi ci nammeelu yàlla boo ne ko deexal maanaam wéral dañ koy wax ci coobarey yàlla ci nammeelu yàlla ba tey daa faje li dal ci deru yaram moo xam day taab moo xam day picc moo xam day góom wala sax nab gi ñu weesu woon léegi des na ko faje nii te mooy nga tegal la ñetti fan bis bu ne nga jàng li wax ñetti fan bis bu ne fatiha teg ci wataral jibaal ni ma ko ci tege woon léegi wa yasalunaka xanil jibaal ak wa matalu kalimatin xabisha topp ko ni ma ko waxee woon léegi ba ci fa amaatahu llaahu mi ata xaamin nga waxanteeg nag lala dal bu dee xeetu nab nga ne nab gi deexal yow nab gi ci coobare yàlla boole ca bi ci na melu yàlla bu dee taab nga ne ko mut ayuha dummalu yow taab gi deexal maanaam leel mooy wéral rek tàggoog man bu dee picc nga ne mut ayuha tu loolu wala mut ayuhal us loolu ndax am na ñaari wax mooy yow picc bi deexal wéral tàggool ak man bu dee ab góomit ci bopp nga ne ko muuti ayatu hassalxatu bi isnillah muuti ayatu hassalxatu bi isndillah yow góom bi nga tifli ko ca góom ba wala taab ga mbaa daal lam doon rekk mu koy def ñetti fan nag wa andi nabi jële nañ ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam annahu nag moom xaala waxoon na ne maaquri at jàngee fut haadihil ayaat yu lay laaya xalaa xilatin ci ak ràgg xinda tulooxi sam si fa fenku jant wa xinda xuróobiha ak fa soxam nga illa zalat ndare mu deñ waxiya ñoom nag mooy qawluhu taala walaw anna qur'aanan suyirat bihil jibaalu aw quttihat bihil ardu aw kullima bihil mawta bal lillahi al amru jamian mu tekki nag kay fa antin naka nga def yow naka la yow ay yetu xan illatu yow jàngoro ji teg ca wayes aloon ak anil jibaali fa xul yan siwuhaa rabbi nasfan fa yasaruhaa xaa an saf-safan laa tara fiha xiwajan wala amta tegaat ca kay fa anti ay yetuhal illatu jàngalaw ansal naa haadal qur'aana xalaa jabal la ra'aytahu xaashian mutasaddian min xashiyatillah wa tilkal amtaalu nadribuha linnaasi la allahum yatafakkaruun tegaat ca kay fa anti naka la yow kay fa anti ay yetu xal ay letu yow jàngoro ji jël nañ ci yonte bi mu ne jëpp jàngoro ji la dal nga fexe ba jamono jant bi fenk ak ba muy so nga jàng laay te waxe ko ni ñu ko waxee tàmbalee walaw anna qur'aanan te bu agsee ci bal lillahi lamru jamihan nga ne ko noo def yow jàngoro ji mooy kay fa anti ay yetu xal ay la soo ci degee wayees aloonaka xanil jibaal ba ci wala am tan nga waxati kayfa anti ay yetuhan illa law anzalna boo ko jàngee ba ci yatafakkaroona nga teg ci kayfa anti ay yetuhan illa en loolu yonent bi ne ku ko def ci jamono jant bi fenk mbaa jamono ya soo jubli yàlla teggil la jàngoro yàlla teggi jàngoro ja wa fii nekk na ci moom aydan ba tey maa loo xam ne lafzuhu baatam moo di wa amal aynu daal bët aha dana yal nanu musal allahu yàlla wa iyaakum ak yéen min sharriha ci ayam fa mimma bokk na ci la nga xam ne yukkuta bu def na ko bind laxaa ñeel ko aw turqaa def ko mocce bi ci moom qawluhu taala mu ne wa isa qara'ta al qur'ana jaxal naa baynaka wa bayna allazina laa yuminuuna bil axirati xijaaban mastuuran wa qawluhu taala ak waxam ja mu ne wa in yakaadu allazina kafaru la yasbiquunaka bi absaarihim lamma samihu dikra wa yaquluuna innahu la majnuun wa ma huwa illa dikrun lil aalamin wa awalu suurati yaasin ak njëlbeenu saaru yaasin ilaa yubsiroona ba yubsiroon nee na nag bët bu fekkee moom lañ bëgg a mocc benn nga bind lii mbaa nga mocce ko ko wa isa xaratal qur'ana ba ci xijaaban masturan teg ci yakaadu alladina kafaru ba ci wa ma huwa illa zikrun lil alamin teg ci nag yaasiin wa qur'aanil hakim ba ca baatub yóbbu siroon loolu tàmbalee ci wa isa xaratal qur'ana ba ci njëlbeen sooratu yaasin ba àggee ci yóbbu siroona fa axshaynahum fa hum laa yubsiruun loolu daal des na ko bind mbaa ñu koy mocce bët bu aay mën naa am nag bët bu aay ba dalagu ko muy fàggani ko bañ mu dal ko wala mu dal ko ba noppi mu bind lii mbaa mu mocce ko ko ndax bëgg mu wér bu ñu ko dee bind ràññeeliwut ba xam dañu koy naan walla dañ koy bind takk waaye nag bind takk la gën a niru ndax bu doon naan li ci ëpp dana ko wax ne dañ koy bind naan wa mimma bokk na ci la nga xam ne turqaa def na ko mocce bi ci moom maa la nga xam ne xallamahoo xamaloon na ko jibrilu jibril alayhi salaam lin nabi ñeen yonante bi sallallahu alayhi wa sallam li yu xawwida ngir mu léemule bi ci moom alxasan ak xasan baatam ba kama fil manahiji na mu nekk ci manahiji mooy allahumma yow buur bi des sultaani yow boroom nguur ga alazimi gay aji rëy wal man ni boroom xéewal ga alxadiimi gay aji jiitu dal wa ci mi boroom jëmm ja alkarimi ji aji tedd waliyal kalimaati te aji méngoo baat ya attaamaati ya day mat wadda awaati ak ñaan ya al mustajaabaati ya day wuyu mooy ñu nangu xaafi yal na nga jàmmal al xasana xasan wala xusayna ak xusayna min labsin ci am lant waxay nil insi ak bëtub nit fa xawadahuma te mu léemu leen faqaamaa te ñu jóg ñoom ñaar yalxabaani di fo bay na yeddee ci diggante yaari loxoom maanaam ci kanamam rek fa xaala mu daldi wax ne xawidoo dee leen léemule anfusakum seen bopp wa ak seeni jigéen wa awlaadakum ak seeni doom bi haada taxawudi gi leen léemu fama taxawada léemu wut almutaxawidoona way léemu ña bi mitlihi ci am kemam ne bokk na ci li nga xam ne des na ko mocce bët bu ay li nga xam ne jibril alayhi salaam moo ko waxan yonante bi ndax yonante bi lii moo ko mocce ko xasan ak xuseyn muy ñaari sëtam ñooñu biñ ko andee ci manaaxi ji nag mooy tàmbali allahumma tas sultaanil azim ba ci min labsin waxaynil ins naka yonante bi wax néew moo ko xasan ak xuseynu ñu daal wér pelak fi saasay saasa tàmbalee fo ci kanamam moom ku baax ki mu daldi di ne lii kat dee leen ko léemule seen bopp ak seeni jigéen ak seeni doom kenn léemoowut kat lu mel ne lii lii mu solo ci lépp lu ñuy léemoo waraqaa moccoon na jibrilu jibril annabiya yonante bi alayhima salaam minal xay ni ci bët bu aay fa xaalate mu wax bismillaahi ci turu yàlla arqiika laa lay mocce min kulli shay'in ci mépp mbir yu udika moom dana la lor wa min kulli nafsin ak ci bépp bakkan wa ayni xaasidin ak bëtub aji añaan allahu yàlla yashfika yàlla na la saafara bismillah li turu yàlla arqiika laa lay moccee jibril mas nay moccal yonante bi ngir bët bu aay daal di wax di tàmbalee bisimillahi arqiik ba daanelewaat bisimillahi arqiik wa waxoon na baadu arbaabil xawaas yi lenn ci waroom jagle yi ne min ahsanima bokk na ci gën jaa rafet li nga xam ne yokkute bu def na ko bind lil hayni ngir bët bu aay wa yaxmiluhu te koy yore maanaam te koy takk alma ayoonu ka bët bu aay ba dal alxirsu gàllaaj gi almarwiyu gi di koy nettali inda baadihim fa lenn ci ñoom mbaa boog xan baadihim jëlee ca lenn ci ñoom xanil xasan ibni xaliyin jëlee ci alxasan mi doomi aliyu radiallahu anhuma waxuwa moom sax alxirsu mooy gàllaaj ga almashhuur ga di guñ siyee inda naasi fa nit ñi bi xirsin naaqa ti ci xirsun naaqa wa awaluhu njëlbeenam nag mooy bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa islaama wallahu akbar ikbaaran wa idama walhamdulillahi ijlaalan wa ikraama wa subhaanallahi wa inaama ila axiri ñenn ci am ay jagle nee nañu lii day dees ko bindal ku bët bu ay dal mu takk ko muy gàllaaj goo xam ne nañu sax ñu ko toxale woon ci alxasan ibnu aliyin moom nag gàllaaj la goo xam ne tur wi mu gën a siiwe fi nit ñi mooy xirsun naaqa mu tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim waaye nag siiw gi mu siiw ci téere yi lasraar yi moo tax andiwut lépp lépp daa andi rek la tàmbalee bismillahi rahmaani rahim ba ci wa subhanallahi ifdalan wa inalama daal dina ila axiri wa fii nekk na ca aydan ba tey mu ne yuta xassanu def na sangewoo maanaam des na aaroo min isaabatu jinni ci jotug jinne wa dararihim ak seen lor bil basmalati ci bismillahi rahmani rahim ci muslu billahi ci kawe na wa bi kalimaatillahi ak ci baati yàlla yi attaamaati ya dee min sharrihim ci seenu ay ñoom jinne ya wa bi xiraati ayatil kursi yi ak ci jàng ayatil kursi yi aqiba kulli salaatin ci gannaaw gépp julli maktubatin guddi gu ñu farataal wa naw nawmi ak fa nama tëdd nelaw wa indal xuruji ak fa nama génn minal bayti bàyyikoo ca néeba mbaa ca kër ga bokk na ci ni ñu musloo jinne ba doo leen gis duñu la lor ngay def gannaaw boo jullee julli farata gu ne wax bismillahi rahmaani rahim teg ca ahoodu billahi min ashaytaani rajim teg ca ahoodu bi kalimaatillahi taammaati min charri ma xalaq mbaa nga ne ahoodu bi kalimaatillahi taammaati min charril jinn ci ay jinne loolu daal moom ngay saxoo gannaaw julli farata gu ne ak booy bëgg a ak booy génne ci sa néeg jëm fenn wa fil xadis yi nekk na ci addis man xaala ku wax isa xaraja ndem génn na min baytihi bàyyikoo ci néegam ne bismillahi tawakkaltu xalallaahi la hawla wala quwata illa billahi yuqaal def na wax la hoo ñal ko ne ko xas bu ko doy na la hudita jubaleef na la wakku fiita te fegaleef na la wawu xiita te fegaleef na la wayu no xaati dee fi soril xan waris ko ashitaanu seytaane loolu lu ñu taamu la addis ba dane boo de génn ci sa néeg wax bismillahi tawakkaltu xalallaahi laa xawla wala quwwata illaa billah dina la wax nga lu doy sëkk de yàlla dina la gindi fegal la dara du la lor seytaane sax bu la bëggee lor du ko man wa mimma bokk na ci li nga xam ne jurriba na toof na ko lil xifsi ngir wattu minal jinni ci jinne yi kitaabatul borooji bind suratul borooji watu àllaqu te deefi ko takk aw fii ina in wala ci ndab watum xaa te deefi ko far wa yushrabu te deefi naan maa ndoxam ma des na ko musloo jinne yi ak seeni lor moo xam da koy bind takk ab téere moo xam da nga bind ci ndab raxas ko naan képp koo xam ne ragal na awi jinne mbaa mu amee ay àndandoo sayoboo rek mu farlu ci di bind suratul buruji takk ba noppi itam nag di ko bind di ko raxas di naan su koy bind nag ci ndab la koy bind wa fii nekk na ci aydan ba tey mu ne wa amal xasadu ndaal kañaan ahaadana yàlla nan doolee musal allahu yàlla wa iyaakum ak yéen minu ci moom fayuta xasanu def na sangiwoo min charril muttasifi ci ayu aji melowoo bii ci moom bi taxawu si ci muslu billahi ci yàlla taxalaa kawe na wa bi ma ak ci li nga xam ne dama jiitu woon na aani fan léegi mi maaj la nga xam ne yuta xasum def na senge woo bi ci moom min isaabatin xëy ni ci jotuk bët bu aay ku bëgg mucc ci ayu kañaan day saxoo ñaan yàlla rekk musal ko ca tey bari la jàng suuratul falaq ndax am na ca mujj ga wa min sharri xaasidin ida te itam lépp lu waxoon ne des na ko ñaane ngir mucc ci ayu bët ba tey loole ma des na ko ñaane ngir mucc ci ayu kañaan wa fii ayuban wa am mandool la nga xam ne yu xawwatu def na léemule bi ci ci moom asibiyaan gone ya fa min bokk na ca maa la nga xam ne kaana nekkoon na rasulullah yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yu xawidu di léemule bii ci moom xasanan xasan wa xusaynan ak xusayna waxoo moom moo di uhidukumaa danaa leen muslul yéen ñaar bi kalimaati looxi ci baati yàlla yi ak taamati yi di way mat min kulli seytaanin ci ayu seytaane wahaamatin ak lépp lu am tooke wa min kulli aynin ak ci bët bët laamatin buy aj jot ciw ay yokku te muy wax ne xaaka saani ki ni kaana la nekkoon abi sama baay muy saamaam ibrahimu ibrahim alxalilu koy xaritu yàlla yu xawisu di léebule ismaila ismail wa ishaq ak ishaq wal hamatu baatub hamatu boobu ihdal xawaam mi mooy mufratum xawaam te zawaati sumoo mi mooy waroom toogee kal xayati ni ki jaan wala xaqara bi ak jiwit wanax yi maak ak lu mel ne ñoom ñaar la mu ne wa aynin laama ay li mu ci namm daati lamamin bërbëti boroomu jot ay li mu ci namm isaabatin jot limaa ñeel la nga xam ne nadarat xool na ilayhi jëm ci moom bi suuy ci lu wax na ko al imaamu assiyootiyu rahimahullahu fi al ahkaami al ahkaam soo bëggee léemul gone mais mën ngaa fab li nga xam ne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da ko daa léemule xasan ak xuseynu tàmbalee ci uxee zukuma ba ci wa min kulli aynin laamma mooy maa ngi ñaan yàlla musal leen ci sépp seytaane seytaane bañ leen a laal yàlla musal leen nit ci lépp lu amee tooge ak ayu bépp bu aay yàlla na yàlla musal ci yooyu yëpp ci darajay baatam yu mat yi te mooy baati alxuraan yi fii mu wax nag uxi zukuma daa fekk ni mu doon léemu doonoon ñaar muy xasan ak xuseynu kon nag yow boo ko bi jàng tey léemu gone gu góor uxi zuka ngay wax bu dee gone jigéen nga ne uxiye zukri bu dee ñaar doonte kenn ka kenn ku dee jigéen nga ne uxiye zukumuha bu dee mbooloo mu góor ak mbooloo mu jigéen ñi di ay xale nga far ëppal doole mbooloo mu góor mi ne uxiye zukum bu dee mbooloo mu jigéen kese nag ñoom xale ya nga wax uxiye zukunna jàll nag ba ci wamin kulli aynin laa am yonante bi sallallahu alayhi wa sallam baadi lu doon léemule xasan ak xusaynu ba noppi nag daa wax ne itam baadi yi gët moom la saamaam ibrahim daa léemule ismaahil ak isxaaq ndegam nag baatub alhamma doo xaw a jafe ci langu arab bu fi la ko ne baat bi mufrad la buñ ko dee joomu muy xawaam alxawaamu nag mooy mbuur lu muy amee tooke ni gaan ak jiit wa min kulli aynin laama jooju nag mooy rek bët bu aay wa man qaraa ku jàng ismahu turam wa taxaala arraqibu mooy arraqib sabaxa borrat juróom-yaari yoon xalaa waladihi ca doomam ja wa ahlihi ak waa këram aw xawla maalihi wala ci la wur alalam fa innahum naka ñoom ya ma noona danañ wóolu dama afaat ci gàkk ya tur yàlla yi ñuy wax arraq yupp soo ko léemu léewe sa doom mbaa sa soxna boo kenn sa njaboot mbaa sax sa alul rek nga wax baat ak roqi juróom-ñaar yoon jublu ci yàlla sàmmal la sa doom mbaa sa waa këru kenn ci ñoom mbaa sa alal yàlla loolu sàmmal yooyu yëpp man xaraa ku jàng isma xaw turam moom yàlla tooxan laa kawe na albarru juróom-yaari yoon xalaa naasuyet yu pislin ci jubbu gone wa daxaxu te mu dénk ko lillaahi ñeel yàlla tooxan na lam yu sib fu du ko jot dororun jenn lor inal bulu wax yu ba ca kàllafe ga fa isa boloxa kàllafe ne nag xara waxoo jàng ko xoo ci boppam xaala wax na ko bax du xulamaay lenn ci borom xam-xam yi almutakallimin ña damay wax fi xawaasil asmaa yi ci jaglay tur yi ba tey boo buggee léemu gone mën ngaa wax baatu